ku la boole woon ak Malick Niang ñu ko wala amul. non Malick Niang hmm. ndax xamul tax amul. Hmm. Hmm, comme moom li ma lay wax rek Fallou Ndiaye. boobu maa ngi États-Unis mu dañoo wax suñu damaa oo. ne Pape Abdou Fall soxla na sa combat. ma ne ko waa amul problème. mu ne ma waa ñan nga bëgg a bëri ma ne ko diw diw ak diw ak diw li li jël ko quatre yu bokkul. mu dem dem dem dem ba si yàgg na ma gars yi ñu ma xool ñoo ñëpp. nangu ñëw ba yow quoi ma ne amul problème kon yàlla baax na ma ma close mu toog si ma ne ma ah, nga Malick ma ne ko Malick Niang bëgguma ko munu lan moo tax ma ne ko non man man man maa ko bëggul maa bëggul a bëre moom. foofu laa lan moo tax bëggoo man maa bëggul a bëre ak moom. mais ah. am nga raison. aw ma benn xam nga lu euh, maanaam man maa bëggul a bëre ak moom. Hmm. Ah, tey jii hmm. ma Malick Niang hmm. moo ma raw. nangul nàkk ka moo ma dàq bëre nangul nàkk ka xam nga lu ma la hmm. mais sunu grand bu ñu respecté la bu ñu jox cër ñu ngi koy nuyu au passage tu vois na nekk si yoonam man maa ngi sama yoon bu ñu làmb boole rek nañ bëri hmm. waaw mais bañu ma ka hmm. defuma ko muy dara parce que am na ñu d'accord am na ñu xam nga tey ñi si d'accordul waaw ñi si d'accordul ak ñi si d'accord loolu ñoom ñoom la rek xam nga lu man maay bëre maay nekk sa géew ba xam nga lu ak sama staff xam nga tey jii man maa ngi sama yoon. musuma toog cinquante bëréew ma. ñaanu ma yàlla toog deux ans bëréew ma ñaanu yàlla def année balance. bu ma defee année balance ak jàppal na ju euh, mbër yi. Mhm. ñoo nangu la bëreeg man. xam nga lu voilà mais man mhm. man maa ngi sama yoon. Mhm. kon du ma toog loo xam ne tey jii maa ngi sama yoon maa ngi rëdd maa ngi dem. ma ma bëgg retourne ma bëgg a retourner ko xam ne dafa am toog cinq ans bëréwul xam nga lu expliqué. kon li mu toog yooyu. te voilà nga prouvé ci moom ma prouvé. waaw ma bëgg a bëri moom bu boobu samay saf ñoo bañ. Mm, xam nga la ma lay expliqué. loolu la mais du daara mm-hmm. Malick Niang a ma raw. Mm-hmm. moom moo ma raw fuuf. Mm-hmm. waaw moo raw ci lamb waaw. d' accord léegi euh, Forza tam daa ko tuddaat fan non Forza ba dëgg ko dëgg yàlla promoteur musuma kaa wax. non non mais pare nga pour dërëm. non non. promoteur musuma kaa wax. Ah, bi promoteur ñëwee ne la. kat mm. nga nga limal ko kat mbër. guy gi woon. Mm-hmm. ak Sa Thiès. Yékini mm-hmm. Junior ak Garga est-ce que c'est ça wala c'est pas ça. <laughs> loolu la wala du loolu bu la. loolu loolu la ñooñu la waaw. kon yooyu laa limoon. Mm-hmm. léegi soo amul kooku ñu ngi dox sa combat ak Bombardier. waaw ñu waaw ñu est-ce que am na promoteur bu la. def hmm? waaw ñu ngi si. ñu ngi si instant bi dañuy may ah, promoteur liñ ma wax. moom laay wax. xam nga man moom ku deewee ak sa bàmmeel. waaw xam nga loolu explique. promoteur oo na ma dama ah nañ ko muñal fii ak semaine bii. Hmm. nañ ko muñal fekk semaine bi la ma wax. fekk affaire wu dëkk waaw dese yooyu xam nga lu ma expliquer man tamit man nangul ko ka nekk amul problème man maa ngi samay entraînement mm-hmm. mais man amul lenn lu muy wax ak man. Mm-hmm. na dem si bombardier bu jubóog man mu ñëwee dañuy jubóo. dachet pare naa man pare naa. non non. <laughs> man loolu moom du yéexee man. si kàttanu mm-hmm. suñu bor man pare naa kay. moom lay dem jubóol bu bayee bu aññee bu bu demee mbuur bu jëlee appel wàcc poste mu ñëw si kër gi ñu jubóo mu jeex. <laughs> parce que yow bu bëri rek la ñor. waaw ah. parce que yow bu bëri rek la ñor quoi. rek a ma ñor di jaale tamit suñu grand boobu. muy Pape Dia. Mm-hmm. waaw suñu grand la. Mm-hmm. ndax bi mu nekkee France ñu ngi doon déggante di waxtaan mu may conseil ci waa nit ku baax la. Mm-hmm. ku jullite tamit. ndax man du ma loo xam ne. du loo xam ne nekkul si nit ki. ndax bu ma dee yàlla suñu borom ñoo koy layoo ci nit ku ku ku baax la. ñu koy ñaanal yàlla suuf oyof si koom si barke Seydina Mohamed. waaw waaw yaayam tamit yaa yàlla yàlla na ko fi yàlla bàyyi parce que kanam ak kanam ak kanam ak papaam waaw ak bombardier tamit yàlla suñu borom bàyyi ko fi parce que kanam ak mm-hmm. mais am na jëw bu ñu la jooy fan yi yaa yaa bombardier mm. ni seen relation ratax boo xam ne dañoo jàpp ne bombardier da laa bëgg jël di def genre ba bareego yooyu non jël la bàyyi la quoi non non non non non non non non loolu am loolu moom du ma ko def ndax xam nga làmbu dafa doy waar gis nga àdduna mm-hmm. ñu xamul rek a xamuñu mm-hmm. mais ñi xam dinañ xam ne ne lii doonul maanaam ay yëf ay kii damay may loxo nangam nangam noonu loxo boo xam ne man bu ma ko jekkalee bu ma ko dóoree mu bu ma ko bëggee bu ma loxo boo xam ne man ma ko bëggee dóor mu kaw te ma koy dóor mu kaw de loolu may loxo la nañu waxante dëgg ñun ma kenn senegal kenn mënta nax kenn yaa may dégg yaa may dégg lu ma loon def bu combat bi taxee lu ma doon def duubul ba duubul ba duubul contrôle ba laay def <laughs> dégg ma dégg nga ma loolu laay def waaw mais kon maanaam gars yi nañ baay waxu ñaaw li ñuy wax mm-hmm. ndax làmb mm-hmm. euh, gis nga ñun man tool weesu naa fu may combiner mm-hmm. ndégam làmb simple laa mënta combine sax xam tuma la may ñëw ba si arène bi di combine nañ waxante dëgg xam nga lu ma expliqué mais nit ñi nañ bàyyi di yàq yàq xelu nit ñi ñun fii kenn commune ñu fi kon kenn kenn kenn new fii maanaam di combine ndax man loolu doonul sama affaire waaw nit ñi nañ bàyyi loolu ñuy wax mm-hmm. waaw fii ku am sa kër papa ngay yóbbu ak sa kër yaay xam nga lu ma la expliqué mais xam nga sénégalais am na nit ñoo xam ne dañuy yàq mm-hmm. dañoo bëri dañoo bëri lu ñuy wax mm-hmm. dañoo bëri wax xam nga ñu tekk la micro ngay wax neex na trop mais est-ce que maîtriser nga wax bi boo ko maîtriser wul rek yow jarul ngay wax waaw voilà loolu la quoi mais loolu rek laa siy wax waaw ñu dëgg la euh, am na ñu naan yow yow yow da da da nga aay si da nga aay si si luur ko mm-hmm. luur boo xoolee ma li ma léegi bébé Saloum Jordan Elton ak Gride mm-hmm. mais que Bombardier moom mënoo ci moom dara loolu moo am nañu ko. waaw yàlla yàlla suñu borom. Mm. am nga kenn ku ne dalaa may lii si mbër yëpp kenn ku ne daa am loo mane mm-hmm. man yàlla suñu borom damaa man damaa may ma mën a bëre poids lourd ndax xamul tax. Mm. ku jaar équipe nationale mm. nekk si symbole bi. nekk tamit maanaam ñuy wàññi sa poids nga xam yow noo mën a bëreeg poids lourd noo ko mën a maintenir kon kooku bëreeg poids lourd du la jaaxal man loolu yàlla suñu borom damaa may ma mën a bëreeg poids lourd xam nga nu ma man nit lu mu gën a diis gën maa arrangé waaw Bombardier champion la moo fi def lu kenn deful doon na fi roi des arènes deux fois tey jii bu ma mayee sax amul lenn lu mu siy gagné nañ waxante dëgg ma au contraire bi man maa am lu ma siy gagné ndax sama yoon laa nekk moom amul lenn lu mu siy gañe xanaa moo euh, moo nin la siy gañe xaalis you kon amul lenn lu mu siy gañe kon day maanaam tamit day dimbali tamit làmb ndax làmb instant dafa tëju nañu waxante dëgg waaw làmb dafa tëju instant bi làmb ji daa war a ibbeeku daa war a ibbeeku ñëpp bëree ñëpp am ay combat sponsor mën a ñëwaat mhm. ah, ay na ma baal si publicité bi ay Free ñëwaat ay Orange ñëwaat ay Tigo ñëwaat ay espresso yëpp dañoo war a ñëwaat. mooy firi rek waaw mooy firi waaw ñëpp dañoo war a ñëw. Ah. xam nga lu ma leen expliqué dañoo war a ñëw ndax hmm. làmb ji dafa toju instant bi il faut ñu ñëw ñu ibbi làmb ji. waaw hmm. loolu la quoi mais waral yow pour yow boobu léegi combat combat VIP mënta taxaw mbër heure bi waaw xam nga heure bi moom daan na fekk en grand combat yëpp taxaw hmm. mais xoolal léegi promoteurs yi ñoo amul maanaam tey jii nañ waxante dëgg promoteur euh, gis nga promoteur sponsor moo doon taxawal yenn combat yi ay cent ay cent quarante million cent cinquante million amul promoteur bu ko mën a génn nañ waxante dëgg li fi nekk kon ñun mbër yi ñun euh, mbër yi fayeeku loolu ñoom ñoo war a xoolaat seen bopp xam ne làmb ji maanaam euh, eggatul si beneen sommet bi buñ ko xa fi ñu foogoon eggatul foofu kon làmb maanaam ñooñ nañ gën a wàccee seen kase mhm. ñu bëre suñu ñu bëre làmb ji mën a ibbeegu làmb ji mën a neexaat. Mhm. te ku ku ne xam na ne si li ngay liggéey te nga nga nga mën a préparer mm-hmm. ëllëg. rëg-rëg naka lay waajalee fin de carrière maanaam bu bu yàlla defee ndax yaa ngi koy yaa ngi si yaa ngi koy xalaat. waaw xam nga tey ji ñun moom ku nekk ak Leyti seen mm-hmm. nekk ak moot seen mm-hmm. nekk ak euh, staff boo xam ne tey jii ñëpp ay intellectuel nañ. kon ñun xam nañ bu baax fu ñuy teg suñu tànk si côté boobu. côté boobu côté boobu moo am ñu si problème ndax lu ñu maanaam ñun lu ñu am si làmb rek mm-hmm. ñu ngi am feneen fu ko dugal. ndax loolu ñu ngi ciy gis suñu bopp bu baax a baax a baax. ok kon euh, yaay gérer sa xel boobu wala dafa ñun dañ non <laughs> non xaw déggoo moo tax may la esaf. xam nga tey ji kenn ku ne mm-hmm. danga am loo gérer. ci mm-hmm. wa kenn ku ne daa am loo gérer mais xam nga esaf ëmb na lépp. waaw mais néew ma fi comme maanaam ba ma nekkee 2013 mille 2012 jël 1 million lekkaat ka léegi wala jël 5 million lekkaat ka léegi. you know yaa da ngay instant bi léegi da ngay xool fi ngay dugal sa xaalis. yu quoi lii fii la jëm lii fii la jëm lii fii la jëm. yaa ngi si si élevage. waaw maa ngi si maa ngi si. ak ak la. <laughs> non maa ngi si élevage rek laa nekk élevage rek laa nekk. <laughs> léegi su ko defee euh, nag yi ñoom nag yi ñu ngi ah nag yi moom instant bi am na yu nekk fi mais am na yoo xam ne caalaan la nekk. caalaan la nekk. Mhm. d' accord bu ñu fa jógee. ñëw yaa ngi waajal benn komba ki MMA. Mhm. le 14 décembre bi ñëw donc deux semaines ci des. deux semaines même pas waaw waaw deux deux waaw même pas. boobu combat noo noo noo koy waajal ak ak lan moo la dugal ci MMA. waa MMA euh, xam nga ni sport la. te man sport laa fi nekkal. ndax euh, sport mooy sama mooy sama liggéey. Mhm. kon man man na ma bu ma gisee beneen sport boo xam ne dafa fay meg moo di ma yokk tamit xel man na ma faa dem meg fa moo niin yokk sama xalaataat yokk sama expérience meg fa moo niin mooy moo niin mooy maanaam am fa tuuti xaalis <laughs> xam na ma la subriqué yee léegi di fa am xaalis mais di nga fa am tamit tuuti expérience voilà xam nga lu ma la expliqué ndax di nga fa fight euh, maanaam lenn rek la uteeg làmb ji mooy tànk ak causenou you mm. loolu rek moo ute si làmb ji waaw kozonu ak tànk ak ak ak ak ak ak zonu ak conc xam na ma la expliqué loolu rek la li mais li si des yëpp mhm. day tax ñun ñu gën a am repère gën a xam fu kuu di dal mhm. kuu bu dangereux tam ñu xam bu baax fu muy dal ñu ngi siy liggéey bu baax a baax ñu ngi dem entraînement ñu ngi si nekk bi nekkee fee tamit doon nañ ko def waaw mais ñu ngi si daal demoon nga états def naa fa trois mois GIGN mmh. ngay. Mmh. ngay ngay liggéeyal. waaw est-ce que à deux semaines de ton combat. de mmh. MMA pare mais boo xooloon bi may jógee États-Unis ak léegi da nga da nga naan ça fait deux. da nga wàññeeku wala da nga yokk. non dama wàññeeku. da nga waaw ndax ah may jógee bu may jógee bu may jógee États-Unis. da woon naa masse beaucoup ah. mais boo xoolee instant bi wàññeeku na mais wàññi bi kii xam nga doo ko mën a gis. c'est que li ñuy entraîné entrement MMA dafa dafa laalaale tuuti musculation. Mm-hmm. looloo tax doo mën a gis sama jeex mais bu ñu demee ba ma daw simeeku daw simeeku di nga xam ne ni kii. Mm-hmm. am na lu bëri lu changé si moom. am waaw. parce que boobu tamit dafay nekk sa première apparition si wàllu discipline boobu. waaw boobu dafay important dafa am importance yow. Mm-hmm. est ko waajalee carrément waaw maa ngi koy waaj bu baax a baax maa ngi xalaat loolu tamit te beneen niveau la lay yóbbu. xam nga lu ma lay expliqué. ndax niveau boo xam ne tey jii Canal Plus international Canal Plus ñëpp dañuy ñëw. ci mhm. waa tey saa bi man ak moom sax am nañ signature le 9. le 9 bi di ñëw le bi di ñëw bu soobee suñu borom xam naa benn ah, benn bi TFM la. Mhm. benn bi Sen TV benn bi 2STV. Sofiane bokk ci mais li mooy mbër tubaab est-ce que mën nañu ko jàpp ci wàllu. non loolu amul ay wàllu jàppale. loolu moom ma ah, <laughs> faayit la rek. Hmm. waa yu fi góor la rek.